ñaan yàlla subhanahu wa taala mu nangul ñu suñuy jaamu yàlla jéggal ñu suñuy bakkaar di ko ñaan mu yàggal fi lool suñu kilifa gi Cheikh Mouhamadou Mountakha te yokk wér te def jàmm ci réew mi def ko ci àdduna bi yépp ñu dellusiwaat rekk ci tolluwaay yi ñu toll fàttalente ci weer wi ñu nekk muy weer wu mag di weeru Sha'ban ndax xam nañ ne jullit bi moom dundam gépp saa bu jógee ci waxtu barkeel rek ñu ngi dëgg malaat weneen waxtu ca waxtu wu nekk mu war koo bàyyi xel jëm caa jariñu ni ko imaam Xazali radiallahu anhu doon waxe ne jullit bi dafa mel ne kuy yaxantu mu am ci wax weer yi ak bis yi yoo xam ne ay traite lañu saa bu ca yeggee wara góor-góor lu gën a yokk lam doon def ngir gën a mën a tonawu ci lu baax génne nañ ci weer wu màgg di weeru rajab <coughs> ak li ci nekk ci ay yiw ki xéewal ak i xew-xew yu màgg dugg ci weeru chambaan waaye di dëgmal weeru gën a màgg ti <coughs> weeru koor kon ñu war a fàttalente rek <coughs> lenn ci ngëneeli weer wii ñu nekk ak ni nga xam ne ni lañ war a waajale weeru màgg wi nga xam ne muy gan gu tedd koo xam ne mi ngi mat si di weeru koor ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu yeggaleñ ci ci jàmm <coughs> weer wi ñu nekk di weeru chambaan bokk na ci weer yi nga xam ne mënees na cee gën a góorgóorlu gën a farlu gën a yokk suñuy jëf yu baax ngir <coughs> day weer wu màgg wu ami wu ami nganeel moo tax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci woor lu bari lool daanaka amul weer woo xam ne lam ca daan woor moo gën a bari li muy woor ci weeru Shaabaan loolu sayyidatuna Aïcha radiallahu anha nettali na ko nee na bi sallallahu alayhi daana woor bañ yaakaar ne du dogati waaye léeg-léeg mu bañ woor bañ yaakaar ne du woorati waaye gisuma yonent bi woor wenn woor ba mat sëkk lu may weeru ramadaan waaye gisuma it weer woo xam ne lam ca daan woor mu ëpp li muy woor ci weeru shaabaan am na beneen xadis boo xam ne dañ ca nañ ko ca waxe mooy li ëpp ci chaban da ko daan woor kaana yasu yasuumu chabaana illa qalil woor weeru chaban nag dana dimbale nit ki ci waajtaayu weeru kooram ndax dana tax mu xawa a gën a tàggatu ci woor ba nga xam ne buy àgg ci koor gi yaramam dina xaw a fàttaliku koor koor it dina gën a dana ci gën a sawar kon ànd ceeg cawarte ak kàttan ci booy dugg weeru koor loolu lu am solo la mu doon weer woo xam ne it bokk na ci lii wane ak màggam mooy suñu borom subhanahu wa da ci yëkkati jëfi jaam ñi fa moom maanaam malaayka yi li jaam ñi def ci at mi dañ koy gaaral suñu borom subhanahu wa taala ci weeru Shaabaan xam nañ ne suñu boroom moom sàkk na ay malaaka yoo xam ne lu jullit bi def ci suba gi wala bu ngoonee ñu gaaral ko suñu boroom waaye lu mu def ci nga ngoon gi it ñu xëyee gaaral ko suñu borom mu mel ne bis bu set rek duñ ko mënoon a waxee ne ay rapport dina dem waaye it kon at mi li muy jëf ci lu baax ay jëfam yépp rekk mën nañ ne dañ koy gaaral suñu borom subhanahu wa taala loola li koy tegtale mooy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam am na usaama bis mu laaj ko ne ko dama gis ngay woor lu bari ci weeru Shaabaan di woor loo xam ne gisuma nga di ko woor ci weneen weer mu ne ko we Chaabaan nag day weer woo xam ne nit ñi dañ koy sàggane ndax dafa nekk ci diggante ñaari weer yoo xam ne wu ci nekk wuñ fonk la muy weeru rajab ak weeru koor te kat Chaabaan gi ñu nekk ci lañuy ñuy jëfi jaam ñi yóbbu ko ci suñu boroom te man bëgg naa samay jëf buñ koy yëkkati fekk ma nekk ci koor kon loolu day wane màggu weer wi nga xam ne dañ ci gaaral jëfi suñu borom subhanahu wa taala kon nag fexe ba waxtu woowa fekk la ci melokaan woo xam ne wu gërëm wuy gërëmloo suñu boroom la loolu kenn ku nekk war naa góorgóorlu kon ci nekk ci lu baax ci biir weer wi lépp lu mu doon def ci ak jaamu yàlla mu gën koo fonk bu nekkee ci weer wi ndax ngëneel loolu day wane ngëneelu waaye weer wi am na guddi gu màgg goo xam ne nekk na ci mooy fukki fan yi juróom guddi fukki fukkeelu guddi gu mag la goo xam ne wax nañ ci ne suñu boroom subhanahu wa taala da ci yëggal jaam ñi seeni bàkkaar lu may koo xam ne dafa nekk ci bokkaale walla koo xam ne ba ëmbal ak noonoo mboroomum jullitam loola kon day tegtale ne weer wi weer wu màgg la woo xam ne guddi gi ci nekk guddi la guddi la gu màgg lu yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko wax ne ida kaana leylatu nisfi min chaabaan ittala allahu ila xalqihi fa yaxfiru lilmuminin wa yumli lil kaafiriin wa yadau ahlal xiqdi bi xiqdihim xata yadauhu beneen boo xam ne nañ ko ci waxe mooy yanzilu rabbuna tabaraka wa taala ila samaai dunya leylata nisfi min chaban wa yaxfiru wane rek mooy kon guddi guddi gu màgg la war kon bàyyi xel bu baax a baax gën cee jéggulu suñu boroom gën cee tuub gën ko cee ñaan suñu borom subhanahu wa taala ak yërmandeem ak ay xéwalam waaye it xadis boobu nga xam ne suñu boroom day dañ ci yonent bi day wax ne suñu boroom dina jéggal ñépp waaye ba des ku nekk ci di ko bokkaale waaye nag ak koo xam ne dafa ëmbal moroomam jullitam ak noono loolu it kon war naa tax ñu bàyyi xel ci laabal suñuy xol ci waxtu yépp waaye rawatina buñ nekkee ci waxtu wii képp koo xam ne am na lu dox diggam ak moroomum jullitam mu jéem koo baal jéem a setal xolam jéem laabal xolam bañ bañ a ëmbal kenn dara ndax nag yërmande yaa yàlla yàlla suñ boroom juyaatu ji lépp lu ci lu koy xañ doomu aadama loola war na ko moytu naa fexe ba bokk ci ñi suñ boroom subhanahu wa taala di jéggal yàlla ñu ci yàlla boole te la koy waral nag mooy ñu jéem a seetaat suñuy xol jéem laabal suñuy xol bañ a ëmbal kenn dara képp koo xam ne am nga lu la naqari ci moom nga jéem ko jéggal jéem a fexe ba daal guddi gi buy ñëw doo ëmbal kenn dara doo noonoo kenn te weer wii di weeru koor weer wii di weeru Shaaban nag ci la ñuy waajal weeru màgg wi di weeru koor kon loolu it bokk na ci màggaayu weer wi mooy weer la woo xam ne suñu boroom dina ci jéggal jaam yi weer la woo xam ne ci la ñuy gaaral jëfi jaam yi suñu boroom subhaanahu wa taala ci at mi waaye weer la woo xam ne dafa sës ci weeru koor ñu wañ ñu war ko cee tàmbalee waajal muy gan gu màgg gi nga xam ne eh, ganuk yërmande la ganuk goreel jaam ci sawara la euh, ganu ngërëmul yàlla subhaanahu wa kon gan gu mel noonu kat nga xam ne saabu ñëwee seytaane yépp ñu jéng leen mbooleem junne yi fetteerlu ñu jéng leen tëj bunti sawara ubbi bunti àjjana ba noppi suñ boroom yabal malaaka muy woote ci képp koo xam ne mi ngi bëgg lu baax di ko wut mu jublu si waaye di dàkku képp koo xam ne aw ay moo la moo la tax a jóg guddi gu jot suñ borom subhanahu wa taala goreel ñu baree baree bari ci sawara weer woowu kon gan la gu mag goo xam ne jar na teertu jar na bàyyi xel waaye jar na waajal ni ko sëriñ bi di waxee ci yaa xayra dayfin di ko tatagal di ko dalal waaye diñu ci jàngalaale nag màggu gan googu ak niñ ko war a waajale wax ne yaa xayra dayfin ata bil bila adadi di ko ca wax naan la dilta dayfan kariman zairan abadan mukarraman bi qirat taati wa sadadi kon màggaayu gan googu nga xam ne sëriñ bi wax nañu ne bu ñëwee niñ ko war a dalale liñ ko war a berndeele mooy topp suñ topp suñ borom subhanahu wa taala aku njub muy def lu baax wax lu baax moytu lépp loo xam ne suñu borom subhanahu wa taala tere na ko kon weer la woow bu ñu buñ ci nekkee suñu xel war nañ koo def ci gan gu mag googu nga xam ne mi ngi ñëw ñu ni nga xam ne ni lañ ko war a waajale war koo dalal ndax bu jublu see ñu baree bari ndaw kundaa ñoom seen xel ci yokk lañ daan jënd ci ay xéewal rek lay dem daan jënd ci ceeb ak suukar ak meew ak yu demee noonu loolu xëy na wàññiw dara waaye bàyyi xel geneen wet gi nga xam ne nag moo tax ñu war moom lañ ko war a gën a waajale

يشهده لا إله إلا الله أشهد أن محمدا وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله suñu واشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه kon <clears throat> sëriñ bi moom wax nañu niñ koy berndeele gan goo xam ne nag xam nga na koy berndeele dangay ngay xam na ko war a waajale kon niñ war a waajale weeru koor war ko ko séentoo dina am yenn rek yu ñu ci fàttali bokk na ci la ci jiitu mooy di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu yeggaliñ ci jàmm ñaan suñu boroom tawfiq ci jaamu ko ci weer wi weer woor ko taxaw ci def ci lu baax loo xam ne danañu ko nangul loolu nit ki war na koy ñaan bu jubee weeru koor gis nañ nit yàlla yi daan faral di ñaan bokk na ci ñaan yi nga xam ne dañ koy faral di ñaan allahuma sallim nii ilaa ramadaana wa sallim li ramadaana wa tasallamhu minni mutaqabbala gis nañ bi radiallahu ci xasida googu di yaa dayfin ba mu koy ubbi di ca wax allahumma rabba ramadaana sallim li ramadaana wa sallim nii li ramadaana wa sallimhu minni wa sallim ni minhu waj'alhu mutaqabbala kon loolu mat bàyyi xel la kon yàlla nañ ci yàlla yeggale ci jàmm te tal ko te jaamu ko ci tamu nangul nu ko bokk na ci liñ koy waajale it mooy yeesal suñu tuub ndax weer wu ñuy dëgmal kët weer wu ñuy taataane la weer wu ñuy wuute lu baax la ah kuy taataan nag dangay fexe ba sa ndab set bala nga caa def te bokk na ci liy setal ndab yi nag di ko di ko raxas mooy ñu tuub tuubal suñu borom subhanahu wa ñaan ko mu jéggal ñu suñuy bàkkaar ndax am na ci bàkkaar yoo xam ne moom yonent bi waxoon nañu ne diggante weeru koor ak moroom ja dañuy kafaara waaye su fekkee ne nag nit ki moytu na bàkkaar yu mag yi te nit ki mu ngi def ay bàkkaar mën naa am muy def sax bakkaar yu mag te du ko du ko yëg mën nay tudd di jëw muy wax loo xam ne mën nañ ko caa bindal bakkaar yu mag a mag te du ko yëg kon nag buñ jubee weeru koor waxtu la woo xam ne war nañ ci yeesal suñu tuub sëriñ bi mu ngi ñu koy mi ngi ñu koy jàngal ndax ci xasida googu ma nga cee wax naan ilayhi qad tubtu fi shaabaana an rajabin mu di mujaddidan fiika fashhad lii bi tarki dadi loolee dañu koy jàngal ma ne kon moom ak fa mu toll ma tuubal suñu boroom subhanahu wa taala ci weeru chaabaan wi di yeesal yéenéem kon nun war nañ ko bàyyi xel te it tuub dana tax ñu nangu ñu nangul la say jëf te kuy def lu baax jiital ca tuub da ca am solo moo tax suñu boroom subhanahu wa taala am na fu muy waxe wa man taaba da caa teg wa amila saaliha fa innahu yatuubu ilallahi mataaba kon yeesal ak tuub lu am solo la ci waxtu yu ñu toll waxtu yépp la jullit bi war a tuubal suñu boroom di ko jégglu waaye bu ñu jubee weeru koor nga bëgg a taataan ngërëmu yàlla ak yërmande yàlla war ngaa raxas sa ndab ba mu set mooy ñu gën a sellal xol yi tuubal suñu borom subhanahu wa taala ci rëcc-rëcc yi ak bàkkaar yi ngir yooyu ay jéng la yuy jéng doomu aadama di ko tayelloo bàkkaar yi day tilimal xol day tënk ay cër ci lu baax kon yeesal tuub googu lu am solo la waaye yeesal yéene it ndax looy jub rek ginnaaw ay topp yàlla lañuy berndeelee gan gi topp yàlla moom la ca jiitu mooy yéene kon buñ jubee koor gi kenn ku nekk war na yéesal yéeneem bu ca yeggee gën a yokk ay jëfam yu baax lu mu daan jàng ci alquran mu gën koo yokk lu mu daan jàng ci xasida mu gën koo yokk daan saraxe mu gën koo yokk lu mu daan dimbalee ci lu baax te man ko mu gën koo yokk loolu lépp nit ki da koy fasaale yéenewaale ko waajaale ko it lam ca man ci waajtaay loolu lu ama am solo la ndax lu amalu binniyaati jëfi jëfi jullit moom ay jëfam ma nga aju ca yéene jak yéene jakolaal rek kon nag bàyyi xel yéene yooyu lu ama am solo la ci waajal e, weeru màgg woowu waaye bokk na ci liñ ko war a waajale it mooy képp koo xam ne amoon nga bor ci weeru koor wi weesu nga góor góorlu ci fay bor yooyu bala ngaa dugg si waat ci weeru koor ah ngànt mën na laa dab ba nga bañ koo fay ñàkk a fay borub koor nag ba koor ga dellusi si bu yow ca amul ngant bàkkaar bu rëy da caa tege te it ay daan sax dana ca tege ndax boo ko demee fayit am na lu ñu am na loo war a leleewoo loo war a joxe bis bu set jox ko miskin yi loolu nag kon boo nekkee ci weer wi war nga koo bàyyi xel te ñu di ko fàttali njaboot yi yi nga xam ne mën naa am amoon nañu ay bor buñ ci tollee wax ci waxtu wi ñu leen koy fàttali ndax yor ci ay fan bàyyi ba mu sës mën ngaa dem ba mu sës rek am lu la dikkal loo tax lu tax doo ko mën a woorati kon nag waxtu la woo xam ne li ñuy waajale weeru koor bokk na ci ñu fay bori koor yi nga xam ne amoon nañ ko ci koor gi weesu ca loola ñu koy tegtal ci ne weeru Shaabaan war nañ cee bàyyi xel loolu sayyiduna Aïcha radiyallahu anha doon na wax ne daanaa am boru koor du ma ko mën a fay lu may fi ci weeru Shaabaan la ko waral mooy yittewoo ak toppatoo gu ma doon toppatoo sang bi sallallahu alayhi wa ba tax duma ko mën a woor waaye bu weeru Shaabaan ñëwee nag moom danaa ko jéem woor kon loolu lañ cay dégg déggee mooy loo mën a am xat loo xat-xat mën ngaa ñàkk a fay waaye boo xasee ba agsi ci weeru Shaban nag yittewoo bor ya nga yore woon fay ko loolu day daal nekk day daal di doon lu farata lool moo tax ñu war di ko fàttaliku di ko waajale koor gi ñu jublu si bokk na ci li ñu war a bàyyi xel ci waajale ko teertoo ko gan gu màgg gi mooy baril lu ñuy jëf baril jëf yu baax yi nga xam ne dañ ci sàkku ay tuyaaba mooy mboolem xeeti naafile yi ma doon tudd léegi muy jàng alquran tudd yàlla jàng xasida jëf yu baax yépp daal mooy lu ci mën a nit nit lu mu ci mën a yokk rek mu yokk ko ci waaye bokk na ci li gën baax nag moom ci ci waxtu wii mooy woor wooru ngàtt nga ndax sa bakkan gën a mën a waaj nga gën a mën a dugg ci weer wi ànd ci ak cawarte ndax waxtu bi ñuy ta ci njëlbeen ku waxtaan wi fàttali woon nañ xadiisu yonent bi sallallahu alayhi bi nga xam ne na Aïcha ma ko nettali wax ne yonent bi da daan woor lu baree bari léeg-léeg mu gëj a woor waaye weeru Shaabaan moom gisul weer woo xam ne lam cay woor moo ëpp li muy weer ci weeru Shaabaan kon li muy teg mooy buñ ci tollee ku ko man nga góor góorgóorlu ci kooru ngàtt nga di ko di ko def ngir waajale ko uh, weeru màgg woowu ñuy ñaan suñu borom subhaanahu temps laa mu yeggaleñ ci jàmm di ko ñaan mu defal ñu tawfiq ñu woor ko te jaamu ko ci di ko ñaan it mu nangul nu ko di ko ñaan it mu fekkeloo ko at yu baree baree bari di ko ñaanat mu yàggal fii suñu kilifa gi Cheikh Mouhamed Mountakha yokk ko wér eh, def jàmm ci réew mi def ko ci àdduna bi yëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa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 أشهد أن لا حي على الفلاح حي على الفلاح الحمد لله الذي أوجب لبعض الأيام كرما وأسمى في الإسلام أوقاتا جعلها للمسلمين موسما نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأتقياء وأصحابه الرحماء الأقوياء أما بعد فيا عباد الله إن لله عليكم نعما فعظموها وإن خطاياه لديكم جليلة جسيمة فأجلوها وأكرموها وإن مواهبه الوافرة وافرة لديكم غنيمة فابتدروها واغتنموها وأن الأزمنة في الفضائل متفاوتة فصلوها بالأعمال الصالحات وعمروها واجتهدوا في الأزمنة الفاضلة فوق المعتاد واكتسبوا من ذخائرها النفيسة ما ينفع يوم المعاد وقد علمتم فضيلة شهركم هذا بين الشهور وأنه تتشعب فيه الخيرات وتحط alawzaaru wa tatadaafu alwujuur wa qad istaqbalatkum laylatun laylatu nisfihi almaxsuusa bilfadli alaziim walraxmati alcaamilati walxayri aljaliili aljasiim وهي الليلة المباركة التي يفرق فيها كل أمر حكيم قال عليه الصلاة والسلام إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها وفي رواية من صام النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب جعلني الله وإياكم من المخلصين في العبادة الداخلين في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الحمد لله الذي عظم بعض الليالي قدرا وأطلع في لها في سماء الفضائل فخرا ونشر فيها أعلام نعمه نشرا وندب لعبادته البلاد ترا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه أرفع العالمين قدرا وأوضحها فخرا أما بعد فيا أيها الناس شمروا في شهركم هذا عن ساعد الجد والاجتهاد وتزودوا فيه ليوم المعاد واغتنموا أيام العمر قبل النفاد وحظموا من شعبان ما حظمه رب العباد wa taarradu raximakumullah li nafaxaati rabbikum fa inna li rabbikum fi ayaami dahrikum la nafaxaat wa tataharu min qabiixi kasbikum ase an tascadu bitilkum raxamaat واعمروا مواسم الخير بالعبادة ولا تقصروها على الشهوة المعتادة فلا تغرنكم الحياة الدنيا فإنها بالبلاء محفوفة وبالفناء معروفة وبالغدر موصوفة فالكيس من لم يزل عن الدنيا معرضا وإلى الله منقطعا ولكل خصلة توجب له محبة مولاه مسرعا جعلني الله وإياكم من السامعين الممتثلين وغفر لنا ولوالدينا جميع ولجميع المسلمين يغفر الله لنا ولكم آمين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 سمع الله لمن حبنا لك الحب الله أكبر الله أكبر الله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 الله asalaamaaleykum. asalaamaaleykum.